saytu gu nu saytu li nga xam mooy parrain yi loolee kat ñeel yi nga xam ne wala ay njiitu coalition ci élection tabu njiitu réew mi waaye ñoom jamono ji ñu ngi ci njàqare ndax la leen ko def rek mooy loi bi nga xam ne moo ñeel ci parrainage bi ndax gis ne daal daanaka ci guuta daal la nar a dugal ñi nga xam ne kat ñooy ay njiita waaye ba tax na daal ñu bëree bëri xam nañ ne wàllum parrainage moom dafay mel ni sax lu dakkal seenu pa arñe waaye ñu jàpp daal société civile ak ñi nga xam ne ñoom ñoo na a xeex wàllum politique ak ñoo xam ne tamit ñi ngi ci pluralisme integral la ba tax na loi bi nag moom ñu ngi ko daal di tàmbali ci atum 2019 waaye loi bi ñu voté woon da leen a dab ci atum 2024 bii waaye ñu gis tamit sax am na ñoo xam ne dañoo tànn beneenu parrainage muy parrainage des députés maanaam parrainage parlementaire dafa mel ni sax benn bokk yaakaar ca la bokk di Amadou Ba wàllu Sénégal bu Karim Wade Wade waaye kenn du fàtte Habib si ndax tànneef boobu daa daanaka sax moo gën a néew lool ci ay risques kon tamit ñi nga xam ñooy nekk ñii ci parti wala ñii ci coalition ñoom amuñu ay député yu doy waaye ñoom la ñu mën a def rek jaar ci askan wi waaye loolu moom dafa mel ni sax ren di sabab la ndax candidat yu bëree bëri ñi ngi am sikki sàkk nax daañu participer mu deet ci élection yi di ñëw ndax loolu tamit tax na daal ñu yaakaar ne dañ leen di écarter ba faw kon ay doublon externe wala ay doublon interne loolee nekk na li nga xam ne mooy sababu échec bu nga xam ne gis nañ ko ci kon tamit day yàq loolu liggéey bi nga xam ne ay at ñu ko amal candidat yoo xam dañoo war a mottali ñi mattaluñu am ñoo xam ne bu deful nank rek ñoom daanu leen gën a beddi tegee ne li am ñoo xam seen stock maanaam lañu ñu denk la ñu daal yaakaar ne buñ ci tibbee kat loolee dana tax sax mu gën a nekk saafara ci ñoom waaye la gën a betteel kenn mooy lajj bi nga xam ne candidat yi nga xam ne ñooy gën yaakaar wala sax ñoo nekk ay ponkal pire ñoom ñoo lajj ci li nga xam mooy parrainage bii kon gis nañ ne ñu bëree bëri ñi ngi ci naam waaye am ñoo xam sax nekkuñu ca ndax yaakaar bu ñu demaatee sax kenn du ko nangu ndax diggante bi mënuñu ko fee am kon am ñoo xam ne kat amuñuy militant kenn xamu leen ñu bëri yaakaar ni tamit parrainage yi dang moom nekkoon na rek nii daal mën a romb déedéet ab tame la tame boo nga xam ne daal la nag bari na kon lajjub candidat yi wala njiitu parti yi nag moom dafa mel ni sax échec la tamit ci askan wi.